man ne El Hadj Malick TV nag soo mënee waxee ci El Hadj Malick TV nag dama ci am mbégte parce que man ma xam ne sëñ Babacar si laay nooy lu ma nekk moom gannaaw sama waajur kon nag damay wax ne El Hadj Malick TV kanam ah, gis nañ liggéey bi nga xam ne yéen a koy kon nag ndax rek ah sawar bi gis nañ leen si teg tànk kon affaire yi amul ragana ah. dégg nañ baax yow ah, gëm sa bopp rek dem jaajëf kontaan na